ziar kenn ku nekk fa nga ne di am mbégte ci jokkowaat ak yéen xam naa ni namoon ngeen ñu namoon nañ leen di ñaan yàlla gën a saxal diggante gi ak cofeel gi dox suñu diggante di nuyu mboolem sénégalais fu mu nekk rek ci àdduna bi di leen ziar di leen jaajëfal ci weer wu tedd bi waaye ci bës bu tedd bi ndax tey dafa di bés bu jullitu àdduna bi yëpp bokk muy taxawaayu Arafat ñii ñu ngi koy dundal fële ci Màkka ci Arafat ñii ñu ngi koy dundal fii feneen fu ñu munti nekk rek ci àdduna ci ku ko mën en tout cas te ragaloo koor ba mel ni baaji ku ndaay ak ku ndaay nga góorgóorlu woor ko kon muy bés bu mag di leen ci ziyaare di ñaan yàlla lépp ñu ci def ci jaamu yàlla yàlla nangu ko ak lépp lu ci def ci ñaan yàlla nangu ko ci lu jëm ci lu ñuy defar di defar réew gis naa ñu bari di laajte ñii di inquiété wu ñi ànd ak njàqare waaye maa décidé woon rek ne damay am ab dal di dalu seetlu di dalu noppalu di dalu xalaat ak di dallu waajal dañuy dëgmal noppalu nañ nag bu baax ñu ngi sant suñu borom profité nañ ci it xaw a wéet ak suñu borom tuuti ndax baax na ci léeg-léeg ñaanal d'abord wayu dawlu yi nga xam ne faat nañ leen ci lii xew te ñëpp xam ni mu demee ak ni mu tëre ñu leen di jaale seeni mbokk lim gi ba léegi amaguñu lim gu définitif waaye gën saa gàtt mat na vingt neuf personnes mu ñaar fukki nit ak juróom ñeent yoo xam ne seen bàkkan rot na ci li weesu ñu koy jaale ñu leen di jaale seeni mbokk amoon yéene fenn fu nekk ci ñoom ñu teg fa suñu tànk ñëw jaale leen waaye gis ngeen ni mbir mi tëree ba mayaguñ ma ko ba mu mën koo def waaye ñu ngi leen di jaale di leen massawu di leen waxit it ni ñàkku leen ndax dafa anam dafa am anam yoo xam ne ku ci yàlla jël bakkanam rek ñun dañoo am yaqin kooku shahid la mooy li tubaab di wax martyr te lii diine wax ci shahid nag mooy kooku set na wicc ci ay bàkkaaram dem na ci boromam ci anam goo xam ne mel ni ni mu juddee woon kon ñun ñooy toog fi di ci am naqar te muy lu jaadu ndax nit lañu waaye man gëm naa ni fee ñu tëdd ku leen fa bëggoon jële delloo si leen fii ñu ne la doy na sëkk ndax nag dañoo daanu ci bëgg seen réew ak xeexal seen réew kon ñu ngi leen di baal euh, euh, jaale di leen massawu ci naqar gi bokk ko génn te incha allah dinañ sol suñu dàll dox ñëw jaale si leen kenn ku nekk si yéen tekkte kaaral gi ñu tekkte kaaral fan yi noppalu nañ ci defar nañ ci ci yaram lu bëri loo xam ne jafe woon nañu lu mel ni yëngatu def tuuti sport ak yu demee noonu waaye yit xaw a wéet ak suñu boroom tuuti ñaanal réew mi yëpp ñaanal àdduna ñaanal suñu bopp waaye ñaanal surtout suñu way dawlu yooyu kon ab àpp la boo xam ne lu yàlla dogal la ni mu war a demee dina ko deme te bu ko yàlla jeexalee dina ko jeexal ci anam bu gën a rafet ñu fas ne nag jokkoog yéen ci lu gàtt ci loo xam ne dafa méngoog fan yi ñu nekk muy fanu tabaski méngoog weeru ñu nekk muy weeru tabaski nañ koy defee ci lu am rek ci événement ci ay fête wala ay xew-xew moo xam bu jullit la moo xam bu katolik la waaye moo xam sax bu baa sacré la nañ koy defee gën saa gàtt nañu bind ab texte ab bataaxal dugal ci suñu page Facebook wala léeg-léeg ñu def declaration noonu lañu koy defee tey rek ndax bii dafa bokk ci feet yi gën a màgg ci feetu Sénégal ak ci feetu àdduna ñuy ñaan yàlla mu mu may ñu ñu fekke ñaan yàlla mu yombalal ko kenn ku nekk ci jullit ñi ndax ñépp xam ñu dafa di feet boo xam ne dafa ànd ak ay charge ak ay dépense te du yàq nag waaye yàllaa ñu ko sant ne ku ci mën a bégal sa bopp bégal ci sa njaboot na nga ko def te bañ a xaabaabal ñu xam réew mi fu mu toll ci ay jafe-jafe ci wàllu économie wàllu koom-koom am yërmande trop ci Sénégalais yi ndax lii lépp lu mu noon ñàkkal ñu leen di ñaanal kenn ku nekk yàlla na ko yàlla oyofal feet bi di gërëm Sénégalais yi nag. di leen gërëm ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ndax gis naa seen élan solidarité bi ñu dëgmalee tabaski beeg léegi fu ne nit yónnee na fa dara yónnee nañ ma lu bëree bëri bëri ci ay gàtt ma ciy sant yàlla yónnee nañu lu bëree bëri bëri ci koppar ma ciy gërëm senegal yi. bu ma jëlee rek misaal ci ku mel ni sëriñ Abdou Mbacké nga xam ne Sénégal dañoo xam sama diggante moom ba tax lu ñuy def dañ koy faral di jaare ci moom lu mat fukki gàtt ak ñaar jaar na ci loxoom ak lu bëree bëri bëri ci ay enveloppe yoo xam ne yéen sénégalais yéen a ko yëkkati teg ko ci loxoom ne ko dañoo bëgg nga yéetal ñu ko Ousmane muy loo xam ne dafa daf ma touché trop ndax na ñàkkuma lu ma mën a jëndee xar te ñu ko defit defuñu ko parce que waaye yéene gi ñu am ci ñun cofeel gi ñu am ci ñun yërmande gi ñu am ci ñun moo tax ñu jël ab gàtt ne kii maa ko may Ousmane Sonko yàlla leen ko yàlla fay yàlla nañ ko fekk déwén yu bëree bëree bëri ba ñu mën di continuer di ko defandee nii ndax sénégalais teranga la xam sénégalais séddoo la xam sénégalais bokk la xam sénégalais yërmande la xam te feetu tabaski di feet boo xam ne feetu séddoo la feetu teranga la feetu bokk la feetu yërmande la moo tax loolee nga xam ne jox ngeen ma ko moo xam ci ay gàtt la moo xam ci xaalis la am na lu ma ci jël tuuti rek lu méngook li ma soxla man la ca des nag ma seddoo kook Sénégalais yi parce que loolu mooy li ñu xam ñun amaana ñoo xam ne yelloo nañ ko te nekk ci ay jafe-jafe su dee sédd nañ ma man lu ëpp sama soxla ma dellu seddoo kook Sénégalais yi loolu lañ ñu jàngal ci loolu lañu ñu loolu mooy suñu réew te ngalaay bu ñu ko dara yàqal gàtt yooyu nag nga xam ne yónnee nañ ma ko da cee am lu ma ci jël li ma leen wax mu méngoog sama soxla te dinaa ci joxe benn misaal rek ndax lu sori la ci man lu tooyal sama xol la mooy gàtt gii nekk sama gannaaw ki mbokk yi li tax mu doon loo xam ne dafa sori ci man gis ngeen gàtt gii ni mu mel ni mu rafetee gis ngeen ni mu toll kii sëñ Cheikh Saliou Mbacke yal na ko yàlla yokk wér-gu-yaram nañ ko yàlla bàyyi lu yàgg yal na ku yàlla yokk ko ci bépp fànn moo ma jagleel gàtt gi keroog bi ma sëñ Moustapha woowee ne ma sëñ Cheikh nee na am na loo xam ne da la koo jagleel waaye gàttuk barkelu la te mu defoon ko nii daaw duguleet ma ko ah loolu de neex na ma lool waaye su ma sañoon na bàyyi man ma ñëw jëlsi ko ma yónnee oto mu jëlsi ko mu na ma déedéet moo koy dawal moo koy dok dugal ci oto andi ko ba sa biir kër moo tax gàtt gi am valeur symbolique bu am solo ci man muy gàtt bi nga xam ne moom la ñu fas yéene barkeloo rek ni ko sëñ bi waxee ni mu ko defee du gulleet wax naa ko ndax defaat na ko keroog bañ may agressé ci corniche ba ba tax ma mujj nekk ci hôpital tëdd fa ay fan doon faju dafa yónni sëñ abu jox ko enveloppe boo xam ne un million moo ci nekkoon ne ko nee ko enveloppe bi ñaan la na ko téye xam naa lii may wax nii sax bëggu ko ndax bëggu lu ñuy wax ci jëfam muy woon it lu tooy sama xel sama xol car bu may génn ci hôpital ba ci enveloppe boobu laa sàkkee bi ñu ma defaree sama facture muy sept cent et quelques mille ma fayee ko ko kon maa ngi koy yokk ñaan di ñaan sénégalais ñu ñaanal ko ba lépp loo xam ne ay naalam lañ ak ay mbébét itam yàlla na ko yàlla yombalam ànd ak nag saa su ñu gisee maak moom su ma demee seeti ko bu ñu waxtaanee bu may dem dugal sama loxo ci su may dugal sama loxo ci poche mu ne ma sa loxo boobu de bu mu génn ndax yow man maa war a sàkk di la jox di la jàppale waaye yow waroo yëkkati di ma jox kon jërëjëf Mbàkke suñu xol sedd na noonee ñu ko seddalee suñu xol seddee sëñ Abdou Mbàkke bi nga xam ne wax naa leen taxawaayam yeneen gàtt yi ngeen gis ni yëpp ci loxoom la jaar moomit it ba egsi ci man ak ay koppar yoo xam ne jaar na ci loxoom egsi ci man suñu nit ñu baax ñu yàlla ñu fi yàlla bàyyi naka noonu it e, yéene gi nga xam ne ba léegi sénégalais nga ko am ci ñun ma lim ci de lenn ci ay kilifa ni ma ko waxee ci ab Abdou Mbacke sax mu doon ko wax ci ñeneen ak ñeneen noonu la amee it ci suñu kilifa suñu sëriñ suñu xarit suñu wëlëre di sëñ Fàllu Chouaïbou sëñ Fàllu Mbàkke ibna sëñ Chouaïbou Mbàkke nga xam ne yéene bi ñu bari am ci ñun rek te yëgoowuñu ko moom la am ci ñun ba tax mu tànn ab gàtt goo xam ne bu mat lañ ko doyee la ci bés bu ni mel gàtt goo xam ne moo ko yaral boppam yafal ko ba mu mel ni mu mel mu yónni ab ndaw ne ñëwal jël ko dem yéetal ma ko Ousmane sonk yooyu yi ay gestes yoo xam ne daf ñëw touché ndax suñu kilifa yooyu yëpp ñu di jël di dem di leen jox ndax xam nañu seen njaboot ni mu toll xam nañu seen euh, charge ni mu toll koo ci gis rek li mu yor ci ay nit yu mu yor ci ay daara li mu yor ci ay ndongo yu nekk ci biir ay daara te kenn génn ci dem sa yelwaan ñoo leen di jox ndékki añ reer ñu waroon di comp ñun di leen jox waaye ñoo am yéene yu rafet yu mel noonu ci ñun ba saa su dara amee ñu yëkkati seen alal wala yëkkati seen matériel daal ñu ciy xalaat daal di teg ci loxo nit mu ñëw ñu jàpp ni nag loolu ëpp na ab gàtt gu ñuy may rek waaye ab barke layut goo xam ne ñu ngi koy teg suñu loxo di ñaan yàlla yàlla nangu ko yàlla sàmmal ñu leen yàlla wattul ñu leen yàlla may leen yokk leen wér bu yaram la bàyyil ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mënuma leen lim ndax ku lim jum ay léeg-léeg da ngay seppi rek joxe quelques exemples mbokk yi tabaski fet bu rëy a rëy la waaye nag nañu fàttaliku lan mooy cosaan ba kenn ku ne bu demee ba tër xalam teg paaka war naa xalaat lan mooy cosaanu tabaski ñu war cee jàng jël jëlit ay jàngat yu am solo sama àll ba nag soriwul moo tax su ma juumee suñu nit ñu baax ñooñ ñuy déglu ci rajo yi mu fassirun yu mag yooyu ñoom Oustaz Alioune Sall ñoom Serigne Iran Ndaw ñoom oustaz Tayib Socé ñoom oustaz Assane ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñu gën a xam téere bi di ñu ko jàngal ay at ñu leen di déglu su ma juumee rek nañ ma gàgganti te xam ni politicien bu soblaa rek ba di wax ci lu lu lu xaw a lu ko xaw a sori waaye tabaski cosaan bi mu ngi jóge suñu maam Ibrahim ak doom ju baax jooju nga xam ne mooy Ismaayil ñëpp xam ne Ibrahim dafa dund ba nekk mag torop te yàlla may ko doom muy affaire boo xam ne ñëpp xam nañ ni kuy dund rek ñaan nga yàlla sanc kër jël soxna te gannaaw boo jëlee soxna ñaan nga yàlla mu may la njaboot moom mu doon yonent nag dund ba nekk mag a mag a mag te yàlla mayu ko donc muy waaraate lépp mu teg ko ci taw tawhid delloo nit ñi ci yàlla kese ba ay mbokkam mere ko fexeel ko ci gët bi gën a fës ci pexe yi mooy biñ ko jëlee yeew ko sànni ko ci safara ngir safara lakk ko yàlla ne safara si kuuni bardan wa salaaman ibrahim ne ko yow safara na nga ne tekk dal sedd bul sedd ba nekk glace waaye bul tàng ba nekk safara ba ibrahima dara du ko dal ci biir safara si moo tax ku yàlla yàgg nattu nga nangul ko yàlla rek yàlla lay yor yàlla lay génne ci nattu bi mu dem ba nekk mag nag yàlla doog ko may doom wa basharnaahu bi xulaamin xaliim man ma wërsëgalal ko doom joo xam ne doom ju nooy la te nangu loolu dafa am solo de nooy te nangu yàlla may ko doom waaye nag mu dem ba doom ji am ko commencé dëgër tuuti falamma balagha ma'ahu sa'ya mu ne bay doom ji commencé nekk mag di dox di ànd ak baay ji yàlla woon ko nee nañu nag jamono jooju yenn boroom xam-xam mu dégg nee nañu Ibrahim Ismaïl waroon na am lu mat ay juróom-ñetti at jëm kaw donc kooku xale la mu ne bi mu tollee foofu la ko yàlla won ci ay gént ne ko sa doom ji dama bëgg nga tër ko rendi ko falamma balaa maa yu saaya qaala yaa bunayya inni ara fil manaami anni azbahuka yàlla daf ma won ci gént ne yow dama laa war a tër te ñëpp xam nañu géntu yonent nag wax yu la gént yonent mooy li ndigal la ci yonent bi bu jóge ci yàlla kon loolu ñu ciy jàngat kenn ku mu doonoon ci ñun de boo mooy loolu balaa balaa ñuy wax nga ne nga weddi borom bi ci saa si ñu jàngat ci benn mooy moom nangu na ko ak nu mu métti métti métti métti mooy nangu ndigal ñaareel bi ñu jàngat ci ni diisoo na ak doom ja loolu lu am solo te boobu doom ji xale bu ndaw la ñun nag fii dañoo jàpp ni doom moom jaaral fii duggal fii dóor waaye dafa diisoog moom fan jour maza tara yow loo ci xalaat loolu ma gis muy beneen jàngat waaye ñu jàngat nag ci doom ja moom it doom bu nekk xale bu ndaw baa ji ne ko da yàlla nee na ma rendil man de xam naa ne su ko xoon sama doom moom kurpe ñi naaw na fi mu toll nii balaa may wax sax ba moytul ma mu tër ma waaye doom ji ne ko yaa abati fal ma tu'mar yow sama baay defal liñ la sant sa tajidu nii insha allahu min assabirin te dinaa ko muñ dinaa ko dékku man dinaa bokk ci aje aje aje muñaafun ko muñ ba ba mu yomb ci yow loolu lu extraordinaire la luñ ci war a jàngal alquran wax ni bi mu jëlee doom ji ba yóbbu ko ba dem ba teg ko nëbb ba euh, euh, nëbb bët yi dëpp ko pour mu bañ a giseeg moom ni ko alquran waxee da ko dëpp jëbi la jël teg ko ci suuf ba jël paaka bi teg falamma aslama wa tallahu lil jabin wa naadaanahu an yaa ibrahim qad saddaqta ruya inna kadhalika najzil muhsinin nee bi mu demee ba dëpp ko ba tër ko ba teg ko teg paaka bi la ko yàlla woo na ko ee yow Ibrahim dëggal nga santaane bi ma la santaane dëggal nga ndigal di ma la ndigal te loolu di màndarga ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañuy rafetal seen diggante ak seen borom te ñoo ñu ni ma leen di fayee nag mooy remplacer leen loolu moo tax mu ne inna haada la balaa ul biin da nga xam ni lii nattu kese la woon dama la doon testé dama la doon nattu gis nga mbirum nattu day ñëw souvent ci alquran te ñu ñi ci war a bàyyi xel ñun ñi nekk ci jamono tey ndax bu ñu delloo see mbir yi ci mbirum nit ak nit rek du ñu gis lu bëri mais suñ ko delloowee ci yàlla dinañu xam lu ci wàllu nit waaye nañu xam ni lépp nag mi ngi dépendre ci borom bi subhanahu wa borom bi mooy nattu jaamam nattu na ay yonent yu bëri amul natt bu yonent bu ñu nattuwul sax d'ailleurs te natt yooyu ñoo gën a métti foofu suñuy nattu ñun mu ne ko da nga war a xam ne lii nattu kese la waaye man yàlla duma la seetaan nga rey sa doom waaye nag naaxu bisi bi zibhin azim maa ngi la koy jëndee maa ngi la koy remplacer ak li nga xam ne mooy ab xar bu rafet rafet rafet ab gàtt bu rafet bu mel ni bii nga xam ne sëñ Cheikh xéwale nañu ko lii mooy cosaanu tabaski ñu war cee jànge leneen mooy gëm-gëm nit soo nekkee ci dara gëm ko te mu leer na lii mooy dëgg daf laa war a jaral daf laa war jaral sacrifice bu ne waroo ragal waroo tiit waroo yox yoxi waroo calculer loolu lañu Ibrahima ak doom ji won ndax dara gënul neex doom ci àdduna rawatina nag ku dem ba nekk mag ak ah, yàlla mayu la doom dara gënul mag loolu dara gënul précieux loolu waaye yàlla jaral na ko loolu ndax jàpp na ni loolu muy dëgg kon kenn ku nekk ci ñun ci li muy nekk bés bu ne ndax dëgg nag dëgg jeexul de du musa jeex jëflante diggante luy dëgg ak lu dul dëgg ilaa yow mi din day am waaye kenn ku gëm ni yaa ngi ci dëgg ci la ngay la tax a jóg la tax a yëngu na la jaral ni mu ko jaree woon Ibrahim ni mu ko jarale woon Ismaïl ba tax ñu am bës bu màgg bii tey war a doon mu doon mu waroon doon njàqare ci ñépp waaye mu doon feet bu rëy rëy rëy feet yi gën a rëy ci àdduna kon ñee nekk Makka nekk Arafat yàlla na leen yàlla nangul lépp luñ fay def ci aj bi nangul ko mboolem seen jullit ñi may ñu dund ko lu yàgg yàgg yàgg ñun ñi fa nekkul it te amoon yéene nekk fa suñu bàyyi woon ci suñu liberté ak suñu teefu bakkan ak ñi fa bëggoon nekk te mënuñu ko ñëpp nekkoon yàlla yàlla bu leen yàlla bu leen Makka umb yàlla na leen fa yàlla yóbbu ci jàmm bu ngeen fa demee yàlla yàlla nangu. lépp lañ fay ñaan ci aj bi yàlla ñu ko yàlla nangul pour àdduna bi yëpp pour Afrique pour Sénégal mbokk yi jaamu yàlla baax na lool julli woor baax na lool jël avion dem ba Makka aji Makka baax na lool waaye jàpp naa ni am na lu ma ne loo xam ne du ma ne moo ko gën de waaye am na solo trop. mooy yéene ñëpp jàmm te moyetu di jëf loo xam ne lor nit moo la ci tax a jóg def nit lu metti moo la ci tax a jóg nañuy yéenante lu baax nañuy yërëmante ku ci yàlla dénk lala yàlla dénk bu ko won nit ñi ci anam boo xam ne luy mettital la waaye na nga ànd ak yërmande jaamu yàlla bu njëkk ci jaamu yàlla yi man dama gëm ni noonu la ndax yàlla nag nun dinañ ko tooñ nee na mën naa baale baakaar yépp nag ba mu des ku bokkaale ba dee ci ma bokkaale ba dee waaye lu dul loolu baale naa lépp waaye dafa am loo xam ne yàlla nee na mënuma koo baale mooy li nga xam ne dafa dox diggante nit ak nit loolu ñoom ñoo ko mën a baalante moo tax nañuy moytu di tooñante di defante lu bon di yéenante lu bon nit mën a dem ba xool moroomu nitam yéene ko dee wala yéene ko kaso walla yéene ko li ko yàlla joxoon lépp ci am am yàlla na ko yàlla na yàqu su doon dangay yem ci yéene waaye di ko jëf di ko jëfe pour yàq nit wala yàqal nit loolu amul lu ko gën a rëy man dama jàpp ni ga jaamu yàlla foofu la doore mooy mu amalaat jëflante ci lépp ñu teg ko ci rafetal kon yàlla ñu yàlla may xol yu rafet yàlla nañu yàlla may yéenante jàmm defante jàmm defalante lu baax te moytu safaan bi tabaskee ngoog yéen ñëpp maa ngi leen di ngeen def une tabaski bu ngeen gisee ma génn wax nag xam naa ñu bari tey yeewee ko ndax ñi ngi xalaat président Sonko na ngeen dem dem feet seen feet bu leen ko kenn yàqal na ngeen fireeku na ngeen ko dund ak seen njaboot ci ni ko diina eh, santaane bu feet bi weesoo nag bu soobee yàlla dinaa jàkkaarloo waat ak sénégalais yi waxtaan ak yéen nag ci tolluwaay réew ak li ñuy dëgmal waxtaan a yéen ci lan moo ci war a doon suñu taxawaay tey du woon loolu mooy jubluwaay bi waaye di gën a soññ ñëpp rek ñu gën a takk suñu ndigg gën a soññ ñëpp rek ci ñu gën a gëm li tax ñu jóg mooy luy defar réew mi ba faw luy defar réew mi teg ko ci màndute teg ko ci sàmm sàmmante suñu biir sàmm alalu réew mi gannaaw buñ ko téye ci biir réew mi respectante kenn ku nekk ci àq moroomam ak yellefu moroomam fexe ba waa réew mi mën a jëriñoo réew mi balaa keneen di ci jëriñoo kenn ku ne ci ñun na ci gën a farlu gën a takk ndigam naam ñoo ngi ànd boobu ba léegi projet nag bu mel nii lu ne mën na cee am am na ñoo xam ne ñaa ngi doon ànd ak ñoom àndatuñoo ak na ñoo xam ne rocceeku nañu parce que dañoo ragal wala dañ leen dig wala dañ leen jox loolu buñ ci jàppal kenn dara ndax wàññiwul dara ci projet bi gis nga dañuy wax ni yonti yàlla Isa Jésus Jésus bañ demee ba mu xam ni noon yi ñi yoroon doole ca jamono jooju yoroon nguur pexeel nañ ko ba dañoo fas yéene ñëw jàpp ko mu dajale ñi mu doon àndal ñëpp ñu toog di waxtaan ñu leen di wooye les mu wax leen ni fii leeg guddi ñu ñëw ci yéen ñoo ma dul weddi wala sax boo moytul yéen ñëpp di ngeen am lu ngeen tiit wala lu ngeen ragal ba weddi ma pourtant ñooñu ñu baax lañu ñooñu ay saabam lañu woon ñoo xam ne fu ne jaar nañ fa moom mu wax leen ko mu am kenn ci ñoom su ma juumul Pierre la war a doon ne ko man de duma ci bokk bu ñëpp doon wëlbatiku daw sax man duma daw ànd ak bu doon kenn moo war a ànd ak yow dee man lay doon Jésus ne ko balaa ginaar di sab ñaari yoon ci guddi gi yow mi Pierre boo moytul di ma weddi ñetti yoon ba ñu demee ba ñoom ñëw ñu jël jàpp ko ànd ak ñuy wax juda juda ne bu ma ñëwee su ma ñëwee ba ci mbooloo mi ki may lëng waxtaan ak moom lëng ko fóon ko rek xam leen ni kooku mooy Jésus biñ ñëwee ñoo ñu xam ni kii mooy Jésus ñu jàpp ko yóbbu ko fañ ko doon attee ñi mu doo àndal ñépp kenn moo jot a dem ba dugg ba ci biir mooy Pierre moom ñi des ñëpp dañoo dawoon xool fu ñu làqatu waaye bi ñu toogee ci biir mu am benn jigéen boo xam ne dafa xàmme Pierre ne mbooloo mi kii de ci àndandowu Jésus la bokk Pierre ne leen kii de mësuma koo xam mësuma koo gis tey laa koy doog a gis muy benn weddi ñu demaat tuuti beneen jigéen jóg ne leen kii de ci moom la bokk fekk naa ko ci ñoom xàmme naa ko Pierre ne leen musuma koo gis musuma koo xam tey laa koy doog a gis bu muy génn foofu benn groupe bu nit ay góor ñëw taxaw gis ko nekko yow de ci moom nga bokk ci moom nga te sa accent sax wane na ni gali galiléen foofu nga dëkk mu ne leen waat naa ni musuma koo xam musuma koo gis daa di daw génn bi muy daw bay génn dëkk ba la dégg ginaar gi sab mu fàttaliku li ko Jésus waxoon ne ko tey balaa ginaar di sab ñaari yoon di nga weddi ñetti yoon te weddi ko ñetti yoon te pourtant ñooñu ñu baax lañu kon projet yu mel nii dañuy toll foo xam ne lu ne mën nañ ko cee gis waaye tey fu mu mujje kan moo ëpp ay nit Jésus Christ ci àdduna bi kan moo ëpp nit Mohamed sallallahu alayhi wa ay nit ci àdduna bi pourtant loolu dal ci Jésus Christ dal na Mohamed ndax ñi nekkoon ci biiram ñoom Abdallah ibn Salul ak ñoom seen demoon na ba xam ni ñii ay naafeq lañu mu xam ko alquran ñëw na ida jaaka almunafiquna qaalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu yaalamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna almunafiqina la kaadibuun dañ doon ñëw ne ko ñun seede nañu yow yaay yonente bi seet nañ ñu yàlla allah mooy yàlla waaye gëmuñu fi woon dara te bu ñi ci biir moo tax di nga ci gis loolu di nga ci gis it persécution ñu dal sa kaw ñi ñu jàpp leen ñi ñu gaañ leen ñi ñu rey leen ñi ñu defal leen def leen lu métti waaye boobu nga war a gën a am dëgër laay xam ne yaa nga ca yoon ba man de gëm naa ni projet bi te su ma demoon ba am ci lu toll ni tarfata ay ci dut yàlla mëttuñ ci saa si lay bàyyi waaye dama gëm ni projet bii mooy defar Sénégal ba faw ndax ñun ñi ko yor soxlawuñu dara dara saleeru président sax bëgguñu moo tax ci fan yi di ñëw dinaa ñëwaat ak yéen ci lu gën a yaatu ci li fi xewoon li fi xew ak fi ñu jëm ndax xam nañ li xew xam nañ fi fi mbiri di jëm waaye fi mu toll nii ñaan leen tabaski jàmm ne leen lépp lu ne woon seen xel ci ay njàqare ak ay xalaat génne leen ko bu leen kenn stressé li ma leen yàgg wax dem leen ngeen feet feet bu neex ak seeni famille seeni mbokk seeni baay seeni ndey seeni doom seeni soxna seeni jëkkër seeni dëkkandoo profité leen bu baax ci xar bi ñaanal leen réew mi parce que bésub ñaan la it bu ñu génnee ci loolu yëpp nag ñu jublu ci liggéey bi am naa ni nag ñu bëri ñu ngi naan président moom ñàng na de ak karawam yéeg faas yeeg ñoom seen eh, waaye ma dalal seen xel du ñàkk mën a wat eh, li ma dab la rek ndax keroog dama dem ba génne sama tondeuse yëpp di waaje a watu nag ndax man maay wat sama bopp eh, soxna si fàttali ma ne waa yow xanaa da nga fàttali dugg nañu ci fukki fan yi njëkk yi ci weeru tabaski bi ndax fàtte woon naa ko. xam ngeen ni ci sunna bokk suñu dëgmalee tabaski képp koo xam ne fa fas yéene ngaa rendi ab gàtt te yàlla may la ko lañ la lañu santaane li bëgg ci yow mooy ci fukki fan yooyu dox suñu diggante tabaski waroo dagg sa waroo watu noonu mu waree ci kee nga xam ne mu nga taxaw arafat noonu la waree ci ki fi nekk nga xam ne da koy bokk ak ñoom ba bésu arafat ba ñoom ñu taxaw arafat yow nga woor soo ko mënee bu ñu xëyee boo demee julli ñëw rendi ñëw watu daal di génne karaw yeeg ñoom seen loolu nag ma fàtte woon ko ba ñu dugg ci dix jours yi rek eh, ma ñëw buggoon watu mu tombeeg loolu moo tax ngeen gis nag ma xaw a ñàng nii mel nii eh, ko ko tëgg damay rek ñenn ñu ne ah président dañ koo tëj ba mënul sax dem watu ci waaye loolu rek moo waral ngeen gis moo mel nii ñu ngi leen di gërëm leen sant di leen ñaanal tabaski jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.